saraax lanuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Kéba point de presse ba doon def démb foofee ci hôtel Yoff Océan moom Kéba li nekk ci xelam nekk ci mébétam mooy leen rek remplacer président Alioune Sarr ci boppu CNG gannaaw ba ñuy laam-laamee ka ngawti ngawtee kan mooy remplacer président Alioune te ministre Matar ba fa séenee tabb ka ko neex moom Kéba génn na fësal candidature am xam naa ne monsieur le ministre moo yor cëkkal gu mooy mooy ñoo xam ne man candidat laa bëgg naa ko mën naa koo yor am naa programme boo xam ne ku ma jox lamb ji ma avancé ko waaye leneen li ma bëgg ñu bàyyi seen xel mooy CNG bii fa ñu jëmee foofu ndox amu fa loo xam ne ku wax ñu dàq wax ñu raje lutte olympique boo xam ne mosuñoo organiser compétition nationale lamb joo xam ne protéger wu ñu kenn ku ci feebar yaay faj sa bopp wala ñu defal la téléthon li ni nag moom Kéba moom la bëgg a jëlee ci lamb ji ba mu jeex ci kaw ñu jox ko CNG mu jiite ko di ko doxal rax ca dolli ne dàquma mataar ba tànn ku ko neex waaye na ci diisoog ak lu lépp lu muy def daal ngir jëmale lamb ji kanam di tabb nit na ko diisoog ak lu itam ba ñu juboo ci ay kàddu leneen lu mu def lu dul loolu yàq na ko bu dee Assane Ndiaye njiital Bawol production moom it kàddu yi yëkkati woon teg ko cib deram tuuma teggi na ko ba mu set wecc gannaaw ñu jortoon ne Assane Ndiaye mooy dox diggante Lac ak Malick Niang génn na fësal lu leer man Assane Ndiaye njiital Bawol production doxuma combat tey doxuma combat ëllëg diggante Lac ak Malick Niang nekkuma ci tey nekkuma ci ëllëg beneen bi mooy Fallou Ndiaye lépp lu Fallou Ndiaye bëgg ma bàyyi koog moom leneen li ñu bàyyi ci làmb te mu fas yéene koo yàq moom la sunu làmb xëy fasal lii di amitié parenté voisinage bokk na ci phénomène yu nga xam ne moo ngi yàq làmb di ko jëme fu kenn xamul bëri nay ténor yu fi nekk ay mbëri VIP yu fi nekk yu dul bëri seen biir Gris Bordeaux ak Eumeu Sène gannaaw ba ñu bëree ñaari yoon combat faat na seen diggante ñaari VIP yi voisinage moo dugg seen biir ku ci nekk jàppi nga sa moroom benn bakkan bu dee Balla Gaye ak Ama Baldé diggante le journal ba xam mooy bile combat bu amoon combat du ko dàq waaye ci kaw suuf Balla Gaye 2 a bëre Ama Baldé ndax bokk guñu bokk beneen combat ba nga xam ne bu amoon dana neex te mënul am mooy diggante Balla Gaye 2 ak Lac de ñaari mbër yooyee it mbokk dox seen diggante moo waral bile combat mënul antu li nag moo waral journal ba xëy daal di fësal ténor yi fësal seeni combat yi nga xam ne combat yu impossible lañ ko jàppe beneen combat bu possible ba ñu taxawal ba noppi diggante Quench ak Double Moteur journal ba xëy na fësal ci lu yaatu ba mu ñëwee ca Quench la mu xam le Paul Maurice Tapha Gueye de Alioune Sèye Junior ba moom Quench ci 10 la ko jële match ba bu yàggul la digganteem ak Diène Kaïré bu dee double moteur ma mu war dajal moom 9 victoire la am benn défaite moo daan bébé bismi lamset boytin boytin g jëf jël Boy Niang de Alioune Sèye Junior naaru sogaas fëga la benn défaite ba mu am Mame Balla moo ko ko teg journal ba xam ne ñaari gone yi bu ñu leen boolee dana neex fekk leen ñu def 3 combats 3 défaites bi la écurie ren ni seeni combat toll noonu la seeni défaites toll ku wax école Père Diaw di wax Vita da nga wax fils de Yékini da nga wax Noiro foofee seen 3 défaites ya ñagas junior bu Seex Mbaba moo daan Vita Siteu Paul bu Kër Massar mbooloo moo daan fils de Yék Zo technique 2 bu Kër Mbay moo daan Noiro bu dee seen coach ba Père Diaw la mu xam le mooy bilan bu bona bona ngi ni saison ren bi neexul a fës